برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته أهل الميامين mbokk yi ñu ngi. nuyu kenn ku nekk. ci turam ak ci santam. ci ziara bi nga xam ne. may nañu ñu def ko tey fii ci Dakar. ñëw ziara si. Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin. ابن مولانا شيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه ziyaara boobu nag ziyaara la boo xam ne yàlla rek a tax ñu def yëngatu yi ak yi ci ak yi ci def yëpp ci yàlla rek lay dem ndax dafa am benn góor ci jamono Seydina Moussa alayhi salaam dafa toog di waxtaan ak soxna si ne ko waaw Moussa mii dañ ne dafay wax ak yàlla mu ne ko waaw ak mu ne ko luñ dem wax ko suñ soxla yi mu wax ko mu wax ko yàlla ba xam ñaan ñoom ñaar dem gisee ak Seydina Moussa alayhi salaam. biñ ko waxee seen soxla waa ji jàmbat ko ne moom ñàkk moo ko sonal. dafa bëgg Moussa ñaanal ko yàlla mu may ko wërsëg. ñu daal di dem Moussa dem jotal vision bi. bi jotee émission bi waa ji dellu si àdduna mu sa borom tontu na waaye daf ne dana la may wërsëg sa mocce dund bi bu ci kanamee daf lay ñàkk laa mu ñëw na rek xam nga jigéen ñi rek mu dem ne Moussa d'accord na yàlla ubbil ko wërsëg waaye ji nekk millionnaire jabar ji ne ko léegi nag dama bëgg luñ toggati nga yàkkal miskin yi looy xotti yére itam nga xottil dem yàlla miskin yi nga xam amuñ luñ sol te nga ubbi benn baara diyaar fa muy kër pour gan xam ku xiif bu fa duggee dana lekk dana naan gratuitement waa ji tabax benn néeg ci Carrefour boo xam ne daf ko defal juróom-ñaari bunt nga xam côté bu la neex rek nga duggee boo xiifee lekk tëdd noppalu naan dem sa yoon dëkk ci loolu dëkk ci loolu ba at mi jeex waa ji continuer rek nekk millionnaire waaw jërëjëf waay ji man daa affaire bi jaaxal na ma parce que ñun li ñu Moussa waxoon mooy benn at lañ ñu may am wërsëg at bi ci topp la ñuy ñàkk te ba léegi ab mi jeex na ba teg na waaye ñuy gis wërsëg waa ngi continuer ñoom wax ko Moussa Moussa dellu ci yàlla laaj yàlla ne ko kii. maa ñaan wërsëg ma ubbil ko benn buntu wërsëg moom mu ubbil suma jaam yi juróom-ñaari buntu wërsëg du ma gën a gore man moo tax bàyyee naa ko li ma ko joxoon yëpp kon addi yi ngi sant yàlla ci diine ji nga xam ne moo ñu ko jox jagleel ñu ko muy diine lislaam ci jamono boo xam ne nag diine yaa ngi traversé difficulté yu métti parce que ñi ngi wax terrorisme waaye réew yi terrorisme gën a yàq réew jullit la deret yi gën a tuuru ci terrorisme deret yi jullit yi alal yi gën a sànku ci terrorisme alal yi jullit yi la kon dafay mel ni ki gën a perte ci terrorisme lislaam moo tax ñuy sant yàlla ñu fi yàlla bàyyi ñu mel nii Cheikh Mouhamadou Lamine nga xam ne situation yu mel noonu buñ ko waxee ci seen kanam ñi jox koog seen borom comme ni Moussa jox ko ci dossier yi waa jooju yàlla mën na yërëm umma bi ci fitna yi nga xam ne ñu ngi ci dafa am benn expert américain da doon seet ba mu yàgg mu ne mbokkam yi nga xam ne duñ jullit ne leen noppalu leen ci alxuraan bii ngeen di ci foofu la may ubbi benn parenthèse alerté ñi nga xam ne dañoo miin internet am na alxuraan bu ñu wàccee ci internet alxuraan bu ñu la boo egsee ci commencement yi Baqara ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين لا يؤمنون بالغيب لا يدفعون يوكو نجو بين الله كون كيب كو خامن مينو القران جانغو بو بيي خالي ريسك لا بو بو جانغي سي انترنت بي فيم نك باسكو دا نغات غيس بنين القران بو خامن بوكو تا غري القران ديغا خامن يالا واتيو نوبو تي يونس يالا محمد عليه الصلاه والسلام kon loolu ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko xel expert boobu dafa wax ñi ne leen leen ci alxuraan bi ngeen xeex parce que moo leen téere diine yi am ci kaw suuf si yàlla wàcce ko ci asamaan buñ xëyoon ñi ne téere yooyu yépp réer na yii lakk na yii lakk na ci géej gi yii xamatuñ fu mu nekk mu ne alxuraan rek lañ mën a jël benn xale mu taxaw Pakistan ñu jël beneen xale mu taxaw Égypte ñu jël beneen mu taxaw fii ci wetu Sénégal ñu commencé ci Fatiha tariyaat kenn ku nekk ba ci minal jannatu naas yi buñ ko moolee ñoom ñett ñooñu wala ñoom ñeent ñooñu seen alxuraan bi du utee beneen téere kenn mënu ci loolu tawra bii bu réeroon tey muy téere Moussa bi kenn ku ko mën a ndeer ci li mokkal injil bii bu réeroon kenn mënu ko ndeer ci li mokkal waa ji ne leen kon noppal leen alxuraan ci xeex bi ngeen koy xeex parce que mënu leen ko xeex waaye malgré loolu ñu ngi continuer li xeex ak alxuraan kon dañuy sant yàlla ci diine ji sant yàlla ci téere bu garanté noonu yàlla jox ñu sant yàlla ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu téere tariqa yëpp baax nañ parce que yëpp zikru la salaa ala rasul sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illallah waaye bii ñi ci am na ñun muy tariqa Seydina Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dafa am xususiya 1196 ci gàddaay yonant bi ci la yonant bi fay yoon Cheikh jox ko tarixa bi tey ñu ngi 1439 boo ko calculé da ngay gis ne tarixa bi am na 240 et quelques années loolu lañ ciy sant muy wird woo xam ne itam ci juróomi minute ou dix minutes maximum mën nga ko def yaa ci sa oto mën nga ko def yaa ngi ci sa welo mën nga ko def loolu it di garanti boo xam ne yàlla jagleel nañu ko ñun mayaat ñi ci biir tariqa bi Cheikh Tidiane ne leen am kuy feeñ ci biir tariqa bi moom la yàlla di jox li ñuy wax alfayda atijaani muy bunt bi nga xam ne ci la yàlla di yombalee xam ko parce que alquran wax na arrahmaanu fasal bihi xabira kon yàlla mënuñ ko ñàkk xam waaye nooy def ba xam ko koy foofu la coow li nekk waaye yàlla dañ koy xam len waaye mos na ma laaj fii ci Dakar ñoo man bàyyi gis na ma ko bëgg xam naa ne wàllu yu yàlla la xam naa ne borom xam-xam la xam naa ne xam naa ne xam naa ne yu bëri xam naa ne du wax dara loo xam ne dafa wut ak sharia wala mu utee ak dëgg waaye ñun suñ sëriñ si dañuy wax ne affaire faydu bi ak xam yàlla yi amul wala ko ñaar moo mën am fi mu nekk pour yow soit yow na ngaa xoomo soit sa sëriñ boobu di wax loolu dafa yeew loolu parce que bu la waxee ne xam yàlla mën na nekk nga posé ko question ne ko dama nga xamal moom te moom mënu ko ñu koy waxee xaj ñu perte la parce que da dem aussi keneen du ko mën kon ki ko daan moom léegi di ko yokk mbooloo mi wàññeeku na ki ko daan jox tuuti dërëm moom dem na bu bañee yooyu am daf lay wax ne loolu yëpp amul parce que yàlla moo ne man yàlla boo ma buggee xam demal ci ki ma xam mu dimbale la nga xam kon bu la sa sëriñ waxee ne ñu xam yàlla daf la bugg a nax pour téye la waaye nag dafa ñëw pour libérer jaamu yàlla yi seen diggante ak seen borom mission boobu mooy mission al fayda tijaaniya bi nga xam ne tey kenn xamul ci kaw suuf si lim bi ñaata la am na ko wax sant ni buñ jaayee carte yi danañ mën a xam nombre loolu yi laaj na beneen góorgóorlu boo xam ne organisation bu bees xalaat yu bees kenn ku nekk ci ñun fi mu toll ci mission baay bi na foofu bañ ko jéggi dem jël loo xam ne mënu ko yow parce que dafay créer retard dafay indi problème kon faydu boobu bàyyam yàlla nga ko jagle loolu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu dem nañ Nigéria bu yàggul ci gàmmu Baye ànd ak sëriñ maax ak ñoom Cheikh Macky gouvernement bu Nigéria wax nañ ne nombre talibé yi ñu tourné ci côté quarante cinq population bu Nigéria xam naa ne ëpp na que parce que gouvernement du nangoo wax chiffre é o nga xam ne moo am ci demee waaye même quarante cinq pour cent boo ko o ci cent quatre vingt millions Nigéria quatre vingt un millions

sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal lislaam garanti sa xeex bi bëri na te jullit yaa ngi nelaw noonu yi dañuy ñëw ci suñu réew yi te nit ñi ay jox ñu góor ñu jox leen xaalis ñu yóbbu xaalis xaalis boobu ñu yóbbu danañ ci tabax ay hôpital seen doom yi faju danañ ci tabax seen doom yi jàng ci danañ ci tabax ay usine seen doom yi liggéey ci yi arme yi ñuy jox ñu ne la rey ci sa mbokk yi góor ak jigéen mag réew mi tali yeeg usine yeeg loolu dafa métti sëriñ ci umma boo xam ne yàlla nee na yéen bi gën ci yi ma mos a génneel ko doomu aadama ndox boobu wala nelaw boobu antum kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yaakaar naa ne ci sa xaatir war nga mën a utu ñi am xaflatu boobu ci umma bi pour wax ak suñ borom mu teggil ñi loolu fii ci Sénégal ñu ngi lay ñaan nga ñaanal Sénégal am na xay yu wër ñu ñu romb ko dem bu mu fi dugg parce que feebar ak am ak ñàkk raf yeeg am yére yëpp ay jaam yàlla la rek yàlla leen boole ak ay nit tey nga dajeeg jaam bu ñuy wax feebar suba nga dajeeg jaam bu ñuy wax wërsëg gannaaw suba nga dajeeg jaam bu ñuy wax fitna waaye jaam yooyu moom bugg nañ nga garanti ñu soxlawuñ ñu ñëw bugg nañ nga ñaan ñaanal gouvernement bu Sénégal maa ngi wax ci contrôle monsieur le ministre de éducation mi ngi nii dafa am yu bëri yoo xam ne état bi def na ko mu jëm ci diine li ñuy wax modernisation de daara dañoo gis ne nit ci diine toujours toujours dafay ragal politique politicien toujours dafay ragal nit yi diine te ñaar dañoo war a liggéey mais noonu yi ñoo nanguwul ñaar ñoo ñu am tax ñuy tiital kii ne du politique ak ah, politique day dara baaxu ko ay fen la ay tappale ay naxante ay nangam ay nangam bu dee politicien bi ñu ne ko nit yi diine yi boo leen fi dugalee dañ lay indi charia léegi di dagg loxo ñoom ñaar ñëpp ñu rafetante dafa lu am solo lu président def mooy li ñuy wax modernisation de daara fexe ba daara alxuraan yi xale yi fay jàngee te di doomi Sénégal

que am na kaset boo xam ne ba ci bàyyi yoo xam ne toog naag Senghor ñu ne réew mi téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom jullit lañu xanaa boobu ak léegi war nañ yokk benn sax ak mu ngi des foofu ba léegi yooyu yëpp ci stratégie combat yi kon modernisation de dara ak bac arabe bi nga xam ne gouvernement bi indi na ko loolu yëpp waqf fi mu ne nii waqf am na waxam voté nañ ko assemblée adopté nañ kum neex nga def waqf ci sa salaire joxe ko ci ay association islamique wala nga joxe ko ci daara alquran ah gouvernement bu defee loolu nag war nañ ko ñaanal ci loolu ñaax ko mu dolli leneen kon sëriñ bi buñ la ñaanee yooyu yëpp ñu ngi lay ñaanal ñu itam ci suñu làmmiñ bu gàtt yàlla gën la dëgëral bépp gan boo xam ne ci gan yooyu ma tudd tabaloon na ko mu ñëw ci sa ko utal walis na ko mu mu dellu feneen parce que comme ni ko suñu rakk waxee Cheikh Aboubacar bàyyi ngeen ci suñ kanam te loolu du mu jaamu du wax lu neex du flirte sa mag du luy gone di wax bës non non bàyyi nga xaqiqatan loolu dañ ko soxla ñun suñ biir Sénégal organisation moom waaye am na yoo xam ne waroon nañ di ko def non seulement ci biir Sénégal mais ci biir Afrique yëpp nga dirigé kon ñu ngi lay ñaanal wér ñu ngi lay ñaanal kattan ñu ngi lay ñaanal doole ci zahir ak ci baatin lépp loo mébét itam ci boppam bàyyi ci njaboot gi ci xarit yi ci sopp yi ci réew mi boo ko ñaanee yàlla ko yàlla nam maa ngi gërëm daayira bi nga xam ne mu organisé ziara bi yi nga xam ne jàppalante nañ ak ñoom yëpp di gërëm nga xam ne def nañ seen dara ak nu mu mën a toll di gërëm xool loolu ngeen xam ne def ngeen ko ci ba si ziara bi tey nawet bii ñuy dugg yéen nga ñaan si yàlla bu nekk nawet bu barke li ci génn yàlla na nekk suñu wërsëg bu nekkee suñu wërsëg yàlla bu mu yàqul suñu loxo ñu ngi lay ñaanal loolu di la bàyyee kàddu gi fi nekk nga ñaanal réew mi ñaanal addina bi ñaanal alal islam yi ñaanal ñu ñun ñëpp su ko defee li des ci programme bi ñi amee micro bi ñoo ko xam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.